li ma wax rek du ministre de la santé dina wax lu infrastructure sanitaire yi li le plan d'urgence de développement de Kermassar. Massar bi son excellence Macky Sall wax nañu man ministre des collectivités territoriales ñu liggéey ci plan d'urgence de développement du département de Kermassar pour rassurer également wa plan d'urgence vous, du pour Kermassar Nord ni Kermassar Sud c'est pour tout le département c'est six communes donc Jaxaay Kër Nord Kermassar Sud Yëmbal Sud Yëmbal Nord et Malika Inshallah, C'est lolu xamna né fan yi di ñëw organiser CRD xamna ak préfet rencontrer toutes les identités toutes les couches waxtaan ba xool li nga xam ne moo gën ci département bu bees bi nous ñu jébbal ko président de la République won ko plan boobu ndax plan boobu nag Inshallah ñu dem def mobilisation de ressources pour mën a exécuter plan boobu au profit des populations de Kër Massar maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf.